asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nooy jot li kàddu yi bàyyi ko jëriñ ni suñu mënoon faal ji turandoo seen faadal bi suñu fal faal jëriñ suñu mënoon ñu ñaan suñu baam yàggal ak dundam moo njaboot suñu rakam yu baax yeeg doom yu baax yeeg mu numéro yi ñoom leen dal yàlla na jox kàddu yoo xam nag moom dafa ñëw ci moom léegi bàyyi ko jëriñ si Cheikh Modou Moussa noo ñaan suñu boobu yàggal ak doon nu wéram gi ak kattan leen wërsëg maanaam gi ak nangu gi kon xol xoli mbir nangul yàlla suñu boobu dolli nangu gi di joxaat kàddu yoo xam ne de nu ko defee nu koy tàmbale ñi nga mooy ñoom ni moom rek muy rafet bi baax yi ànd ko doom yi kàddu yi bàyyi ko jëriñu seen tubaab ja Cheikh Modou Moussa ñoo ñaan suñu boobu yàggal ak te wéral ko ñëw jëm si Sénégal seen mboolu Moussa seen daal moom suñu mën mel noo ñaan suñu moom yàggal lu wéral ne ñu baax ñëpp ci kon fan wi wax ni suñ tuwaa seex moom tax daa bëgg yàlla bi daan def mu defaat ko noonu njaboot Sénégal gii loolu seen mboolu Moussa bëgg la ko àllarba alxames ajjuma rek ajjuma ji seen rek lay doon turu yàlla waxee dafay tàmbale juróomi ñetti waxtu suba mooy huit heures ci ni yaa dund leeral juróomi ñetti waxtu suba muy huit heures ci suba ba fukki waxtu ci guddi muy dix nag suñ bàyyee nag kon jàngite xasida yi fam ñoom itam waaye lii nag la digalaale waa waa Kër si nan ko nan ko daan defee rek suba ci juróom-ñetti waxtu nu tàmbali turu yàlla bi di tudd yàlla nag ba. juróom fukki waxtu ji guddi mooy dix heures dix heures ba dix heures man loolu jëriñ suñu doy ji bëgg jox ndigal yi jëriñ sarafal gi mu jox ko mboolem njoor sarafal gépp nag kon nag ku jot mm, kàddu yi te sa bunt ci Sëriñ Tuubaa di sarafal di bunt sarafal di seen moo amit fàll kon kàddu yi mu bàyyi ko jëriñ ji bàyyi ko jëriñ sarafal nag ku ne fexe ba jot la ko doon te ñaar la mbaa ñett itam Mm, soo ko dee a soo ko dee nu sori sori rek bu dee sab sofe fexe ba jot li ko kaddu yi si bi jot li lu te li bëgg lépp rek mm, ndigal li mën a lu na ko bëgg na ko fab la mu moo yan ko ndigal li te ñaan suñu borom nag da nga koy da koy jàppe ni la nga dugal si biir gaal ba tëj ko na yor doom ba nga xam jàpp nga ne soo demee fekk ko ku ñaan ku ne la nga bëgg ci bis bi lii si jëriñ si def lu yaa ko jur seen faal yi kenn koy na ci ñaan dam bëgg ñun yow seen simbal faal gépp ak koo xam ne dégg na kaddu gi te bokkoo ñun pas-pas bu ko déggee ci kilifa moo xam bu ko déggee sunu kilifa moo xam ñu jàkk jàmm nag kenn bañ a lot kenn bañ a wéradi ko ànd ak mën na ko wërsëg def ko jàmm noppi jàmm nu delluwaat ci baatu ndigal yi nekkoon ba ndigal dabaanu barke sëñ moom Falil Fall daaji sëñ moom Moussa Fall daaji sëñ Tuubaa Seer Fall allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim